membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilma mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi dellusiwaat ci suñu jataay yi ñuy am ci ngoonu koor gu jot di leen ndokkeel ci weer wi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen ñu koy bokk di am fii ci dégg diine di ci waxtaanee ay tomb rek ci téere bi di Ighathatul Lahfan bu alimaam Ibnul Qayyim rahimahullah tey góor gi rahimahullah di wax ci màndargay feebaru xol màndarga yi nga xamante ni mooy màndargaal feebaru xol ndax dafay wax ne bu fekkente ni benn cër am na feebar bu ci nekk nee na loolu dafay tax cër boobu fonctionnalité bi taxoon nit ki am ko cër bi dootu ko mën a taxawee lu mel ne nit ki bu amee jafe-jafe ci loxo nga gis ne loxo bi téye wala jàpp wala def yi mu daan def dootu ko mënati bu amee jafe-jafe ci làmmiñ làmmiñ bi dootul mën a di wax naka noonu tamit xol bi nga xam ne yàlla daf ko placé ci nit ki jox ko ko ngir mu ci mën di xalaat di ko mën di jariñoo ci dëgg di ci mën di def lu baax wa ci pas-pas yi nga xam ne mooy nekk ci xol bi ak jokkaloo gi nga xamante ne xol bi dina ko jokkaloo ak boromam ci ngëm gi mu koy ngëm màggal gi mu koy màggal wéetal gi muy wéetal yàlla ak yu jëm ci loolu bu fekkente ne xol bi yooyu nga xam ne yu ama am solo la ci dundu nit ki fii ci àdduna ak xera xol bi taxaweetu ko xol boobu xol bu feebar la feebar boobu nag léeg-léeg nit ki yëg ko comme léeg-léeg nit ki bañ koo am na ci nit ñoo xamante ni feebar boobu mën na nekk ci seeni xol mais feebar bi sori na sori ñoom soriwaay boo xam ne duñ ko yëg ndax waxoon nañ ci li jàll ne am na ci feebar yoo xamante ni léeg-léeg ci saa du mettital nit ki ndax xol yi ñaari feebar la feebar boo xamante ni bu tàbbee ci xol bi nit ki du ko yëg daf ciy nekk ndànk-ndànk di gangrène xol bi dem ba jàpp ko complètement ci yu mel ne xeetu réer yi nga xamante ne moom mooy tàbbi ci xol bi xeeti bokkaale ak yi ci jëm léeg-léeg yooyu bu nekkee ci xolu nit ki nit ki mën na bañ a xam ne moom dafa am problème beneen bi ci des mooy yi nga xam ne bu ci nekkee ci saas nit ki da ko yëg ci wàllu mer ak tiis ak naqar ak ci jëm léegi nag nee na léeg-léeg nit ki sax xam ni feebar bi mi ngi fi waaye amul courage li nga xam ne loolu la war a def pour suivre benn traitement boo xamante ni bi mooy tax feebar boobu wér nee na muñ boobu ak patience boobu amu ko ndax léeg-léeg garab du neex liñ naan xay garab du neex garab du neex garab mën naa wex wextan boobu nekk ci garab bu fekkee nit ki muñu ko ngir fàttali ko ak def xelam ci neexitu wér gi nga xamante ni garab gi li muy naqari naqari dina ko ko jural soo moytul du ko jël moo tax léeg mu daan jafe xale nga jox ko yenn garab yu weex yi ndax xëy na amul trop xel mu ko may mu xam ne garab gi li muy wex-wex li mu koy jural ci njariñ moo ko ëpp mais bu dee mag la xëy na moom mën na koo gëmm di ko naan ndax wex na ci moom waaye mi ngi séntu njariñ li mu koy jural ci yaramam naka noonu tamit ki nga xamante ne bi ay problème mi ngi ci xol bi ci xeetu feebari réer feebari bokkaale feebar yu jëm ci yu mel noonu léeg-léeg am na ci nit ñoo xam ne courage muñ ci traitement bi amuñu ko parewuñ sax pour déglu maanaam médecin biy wax di leen di leen prescrire li ñu war a jël ci traitement ak pour diagnostiquer wax ne feebar mu ngi fi duñ ko sax nangoo déglu ndax du moment où traitement bi metti na nekkul loo xamante ni lu dëppoo la ah, parce que ñoom li ñuy xool mooy concordance la ñuy xool lu dëppoo ak li nga xam ne moom la jàpp léegi ñoom jàpp nañ ni loolu amuñ ci njariñ amuñ ci soxla léegi ki ñëw présenté wu ci kanamu docteur bi médecin bi feebar feebar boo xamante ni bii bi mu ngi koy détruire di nar a yàq docteur bi commencé di ko wax ne ko feebar bii nga feebar lii la ak lii ak lii mu ne ko noonu du ko déglu parce que li mu koy wax neexu ko daf ko naqari le seul fait que docteur bi ko wax ne ko da feebar mu ne ko li nga may wax ni bëgguma ko dégg bul ma ko wax lu tax nga naan ma damaa feebar léegi man feebaruma dara jotuma beneen bi ci des mooy bu demee ba ne ko garab bi nga war a jël léeg léegi la mun a noonoo du ko jël imma ndaxte xaalis bi muy jël di ko ko jëndee jaraloo ko ko beneen bi ci des mooy garab yooyu bëggu ko léegi kooku est léegi nag li ëpp ci nit ñi noonu lañ mel seen bànneex ak seen bëgg-bëgg lañu jiital seen mbiru diine ak seen mbiru borom ak seen ñàkk xam léegi bu ko defee buñ tànnee ñaari nit kenn ki lay faj ak ki nga xam ne da ngay ñëw mu lay raayal sa sa sa feebar naan la yow koy dara jotu la di la ko uppal naan la ah, yaa ngi ni yëg peex mi ak seddaay bi ak ni mu neexee gis nga dara jotu la kële naan la dangaa feebar bëgg laa jox garabam yu weex yële bul ko déglu bëggalu lu baax garabam yi dafa weex nga daal ne lay yokk di la sax gën a jox di la gën a alimenté loo xamante ni dafay yokk sa feebar mais du moment où neex na ci yow ne yëgaloo benn métit ndax amul contradiction bu am entre li nekk ci biir ak moom li mu lay indil boobaa doo sentir dara contradiction bi mooy moom feebar moo fi nekk mu yokk ay feebar yow da ngay sentir benn raaxa muy benn noflaay ci loolu lu bari ci nit ñi li moom moo leen sànq seen wàllu diine ba tax na góor gi rahimahullah expliqué ko noonu ndax boo xoolee li nga xamante ni moom la yàlla subhaanahu wa taala wax ci boroom xol yu feebar yi daf ne laqad zarana li jahannama kathiran min al jinni wal ins lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum aayunun laa yubsiruuna biha wa lahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaika kal ancaami bal hum adal ulaika hum algaafiluun suñu boroom subhaanahu wa taala li mu wax mooy am na ci nit ñi ak jinne yi ñu bari ñoo xam dinañ dem safara jahannam yàlla nee na leen ko jural mooy yàlla jox na leen ay jumtuwaay waaye jumtuwaay yi amalu leen njariñ jumtuwaay ya imma dañ koo jël jëfandikoo ko ci anam bu baaxul ba mu yàqu ndax feebar bi nga xam ne moom moo ci am wala ñu jël ko teg ko noonu jëfandikoo wuñ ko moo tax mu ne am nañ ay xol waaye seen xol ya doonuñ ca woon xelu ak a settantal pour xam dëgg ak xam ak ràññee yoon wi nga ne moom moo leen di indi ci man di di xool lu baax ak jëfandikoo seeni bët ngir xam fan la ñuy teg seen tànk ci yoonu njub defuñu ko woon di déglu ngir dégg lu baax mu mën a àgg ci seen xol ndax ñaari bunt yooyu ñaari bunt yu am solo la yoo xam ne moom mooy jàppale xol bi ci mu def fonction moom mooy bët yi ak li nga xam ne mooy nopp bi léegi bu fekkente nit ki jëfandikootu leen jëfandikoo wuñ bu baax waxuma la di indil xol bi di ko alimenté ci lu baax ci matière bu baax bi mu war a traité pour nit ki mën ko jariñu waaye dañ koy sax gën a feebar moo tax yàlla nee na ñooñu ñu ngi mel ne ay bàyyi ma bàyyi ma yi sax ñoo leen tane côté bi leen bàyyi ma yi tane mooy ñoom loolu ñu am sàgganee ko ba jariñoo ko bàyyi ma yi bu ñu ko amoon ñoom jariñoo ko kon bàyyi ma yi ñoo leen tane léegi bu fekkente ni seetlu nañ loolu dañ gis ne lii góor gi rahimahullah wax ci mandarga yi nga xamante ne bi moom mooy mandargaal xol bu feebar ay mbir yu bari la dafay wax ne léeg Euh, commencé na dafay traité wu mais nee na bu muñul trop seytaane na ko na ko mën ëpp ko doole ak bakkanam ba dévier ko tegg ko ci li nga xamante ne bi moom mooy traitement boobu nga xamante ne waroon na koo suivre léegi bu ko defee nit ki da ngay gis ne lépp lu jëm ci wàllu yàlla ak gëm yàlla ak wéetal yàlla dafay mel ne lu dis ci moom du pare pour nekk loo xamante ne daf koy déglu wala daf koy def ci xolam. am na ci nit ñi ñoo xamante ne mbiri suñu borom subhanahu wa taala di ci wax sax wala ñu lay ñu leen ciy fàttali ak yooyu mënuñu koo supporter mais loolu feebar bu nekk ci xol bi moom moo koy waral am ci ñoo xamante ni ngëm nga mi ngi fa wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ngëm gi mi ngi fa waaye ngam nga dañ koy jël bugg koo booleeg lu nañu jaxase kook moom jël ay mbindeef jël bépp cër ak bépp màgg bu ñu war a jox yàlla jël ko jox ko mbindeef na yow boo xam ne yàlla moo la bokk boole sàkk sàkk ko yéen ñaar mu sàkk leen lépp lu ngeen am yàlla moom moo leen ko defal muy mbindeef mu doyadi boo xam ne mënalul boppam dara segam yonante yi la yàlla di wax ne qul laa amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah waxal ne mënaluma sam bopp njariñ mënaluma sam bopp lor lu dul lu soob yàlla segam yonante bi la yàlla di wax loolu alayhi salaatu wasalaam ci alquran nit ñi di ko jàng keneen ko dul moom waxi noppi waaye nit ñi dañuy def léeg-léeg bëgg bëgg goo xam ne dañ ciy xaabaabal ba fàtte yu baree bare bare bare bari léegi yooyu bu fekkee dem na ba installé wu ci xol ba lalu ci ba nekk mbëggeel bu àgg ci ndikki fenn fi da ngay gis ay feebar lay jël yoo xam ne traité ko problème dëgg ndax traité feebaru koo xam ne dafa dëgër bopp ndax dafa jàpp ne feebarul moom bokk na ci gën gën a gën a metti loolu moo taxoon yonent yi doon jànkoonteeg ay jafe yu metti bi leen yàlla yabalee ci ay nit yoo xam ne dañ doon jaamu ay xërëm ñu ñëw di leen bëgg a teggi ci yoon woowu ngir jëmal leen ci seen yoonu borom ñu dëgërante ak ñoom bopp façon wax ju ñaaw ju nekk ñu doon ko daan wax jëf ju metti ak ju ñaaw ju nekk ñu ko daan jëf di ko jëmale ci yonent boo xam ne yàlla daf ko yónni mu ñëw ci yow ngir sauver la ngir jàpp sa loxo jële ci yoonu safara yóbbu la ci yoonu aljanna waaye lépp ci nit ñi seen réer léeg-léeg moo leen di toñ nga gis itam euh, càggante ci wàllu jaamu yàlla ak delloo nit ki delloo xelam ci yàlla ak diisu jaamu yàlla ci moom loolu moo tax ci euh, bunt bii dañ koy xaaj def ko ñaari jataay beneen jataay bi ñëw insha allahu taala dinañ ci waxtaane yi nga xam ne mooy màndargay xol boo xamante ni xol bu wér la te loolu boo ko xamee xam mandargay xol bi nga xam ne xol bu feebar la bokkaat ci ba léegi nga gis sàggan ak bëgg ay caaxaan saa bu ay caaxaan jóge rek nit ki mel ni dañ koy xëcc di ko ci jëmale bëgg lépp loo xam ne lu bon la lépp loo xam ne du jëm ci mbiru seytaane la ak mbiru bakkan te sori yàlla xol bi bëgg loolu lool bëgg ko ah, bokkaat ci ba léegi itam xol boo xamante ni poñetum àdduna ak mbiru àdduna ak naw guñ lay naw ak yëkkati ñu lay yëkkati ak fu ñu lay teg yooyu rek ngay xool waaye am sell ak dëggu ci li xol bi di def ak li nit ki di def te yàlla tax donte jaam ñi xamuñu donte jaam ñi yëguñu donte nekkuloo fa ñu lay tuddee ka tàgg ak a yëkkati mais li la yitteel mooy yaa ngi ci mbaax yaa ngi ci loo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu moom moo la ma nekk sa jubluwaay mais bu fekkee xol bi dafa feebar da ngay gis ne ci considération yooyu rek la fay dox lay dox. loolu ci foofu la ñuy taxawee ba jataay bi di ñëw ñu wax ci yi nga xam ne mooy màndargay xol boo xamante ni xol bu wér la hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam